Bellingham footballkat bi nga xam ne jàpp na ni moom la gaañoon ma ngay wallu ci football espagnol di bëgg sax naqarlu jëf ji nga xam ne moom lañ jàpp ni moom lañ teg ci kawam wala moom lañ bëgg a teg ci kawam mu ay daan loolee naqari na ko bu baax a baax euh, ma sàkku ci yéen abonnement yi nuyu leen sant leen bu baax a baax ànd beeg ñun info am na solo Aladji Malick ci kàddu gi yal na yàlla suturaal leen suturaal Sénégal ma nga noonee mason Euh, nga xam ne daanaka mooy Grete Wood moom mii nga xam ne Xetafe la doon football di footballkat bi nga xam ne bëggul woon sax kenn sanctionné kile euh, di li nga xam ni euh, daanaka moo nekk Bellingham ba sakk woon na sax ci gone footballkat yi wala gone yi nga xam ne ñoo yor football espagnol di leen xamal ni daanaka loole nekkul li nga xam ni Euh, neex na ko ndax bëggul ñu euh, sanctionné ki nga xam ne mooy Bellingham loolee ñu ngi ko jëlee ci mail sport nga xam ne daanaka ab journal la boo xam ne ma nga nekk fële ca réew mu Angleterre di fa def liggéey boo xam ne bu mucc ayib la waaye nag euh, li am moom bu xasee am ba pare yaakaar naa ni loole kenn mënatu ci dara waaye ñuy waggarlu bu baax a baax ci footballkat bi nga xam ne moo nekk Jude Bellingham gars yi moytu bokk li nga xam ne mooy attaque yi nga xam ne daanaka mooy yu foor la ndax Real Madrid dafa compter ci moom bu baax a baax ndax mooy footballkat bi gën a xarañ ci équipe bi la gone yi sol mooy weex yi loole ñu jàpp ni kon bu fekkente ni am na ay jafe-jafe yu am ci moom mën naa am ak cooxe ci équipe bi donte sax équipe bi jàmbaar lan jàmbaar yi fàkkatadi yoo xam ne sax daanaka yooyee lijjanti wuñu ko ndax problème yu mel noonu sax yàgg nañ koo gérer te bu boobaa daa gars yi dañ koy dóor mu daanu buñ jógee foofee ca Espagne dañuy burum lu nànk nag dem fële nga xam ne daanaka euh, moo nekk ci euh, match bi nga xam ne daanaka Erling euh, Haaland ak Manchester City doon na ko def seen diggante ak équipe bi nga xam ne daanaka mooy lu Luton maanaam match boobe nag ñeenti bit la ci kii di Erling Haaland dugal futur footballkatu Real Madrid manees naa na wax ndax noonu ndax Real bëgg na ko kon loole tamit lu war a mën a sotti la war a mën a nekk moom moomee ñeenti but la teg ci taabal ji en cinquante huit minutes gaa yi loole doy na waar juróom ñetti euh, troisième but bi nga xam ne dugal na ko wala boog première but bi mi ngi ko dugal dix-huitième minute euh, beneen but bi ci topp mi ngi ko dugal quarantième minute beneen ba ca topp mi ngi ko dugal cinquante cinquième ba ca topp ñetti minutes ginnaaw bi cinquante huitième minute moom mii di Haaland mu fëgg ci taabal yi bit yooyu nag am na ca taxawaay bu yaatu yaatu moom mii di Kevin De Bruyne ca passe décisive maa ngi leen ko doon wax léegi kii di euh, Lionel André Messi muy dugg ci histoire waaye ndekete yoo moom mii mënut a dab kii di Cristiano Ronaldo te yaakaaruma ne dina ko dab ndax Cristiano Ronaldo mi ngi ci 623 millions de followers ci Instagram Lionel André Messi àgg na ci barre de cent cinq cent demi milliard euh, Neymar moom yaakaar naa mi ngi ci 219 Zinedine Zidane tolluwul ci 219 waaye fi mu toll nag wax dëgg yàlla pare na pour duggaat. ci football moom mii di ancien tricolore di international d'origine algérien kooko soxla nag fintoon ni mën ngaa wax ak moom waaye ñu bari nag jàpp nañ ni fële ca Angleterre ñu gën a jekko li nga xam ne mooy gone gi duñu dem te bàyyiwul xel kii di Red Star mi nga xam daanaka mi ngi ci national kii di sunu international la Habib Beye yor ko di entraîneur moom moomee nag daanaka la mu rawee gaaya bari na lool ki topp ci moom mi nga am 41 point moom mii mu am lu toll ci quarante neuf points ginnaaw bu amee victoire bu yaatoo yaatu ñaari bal ci euh, benn moom gone gi wax dëgg yàlla ñu ñaanal ko jàmm ndax sunu international la teyit daanaka fi toon yi bëgg nañ mu jàll ca geneen wàll ga waaye yoon wi mu jaar bu fekkente ne xig bi nay gëtam te bàyyi ko arrêté wul benn yoon mën naa tax mu gën a sori gërëm na leen sant leen nii yeneen information loole dana soxla revue de presse bi jërë ngeen def